Toujours fidèle à sa logique républicaine, cher Bakar les religieux et conseils avisés et attitrés des présidents successifs, ainsi que leurs homologues de la sous-région, ont toujours reçu ses conseils et prières pleines de baraka. Aujourd'hui, il a organisé une cérémonie de fervente prière à l'honneur du président Ali Bongo, président du Gabon, malade pour un prompt rétablissement et une stabilité dans son pays. Le Sénégal a été associé à ces prières pour un apaisement pour une période post-électorale. On a noté la présence de Ahmed président des fédérations de la jeunesse musulmane, aux côtés de la Diagne, qui a encore réitéré ses voeux de prompt rétablissement au président Ali Bongo et a prié pour la paix, pour sa famille, son gouvernement et son pays, ainsi que le nôtre en ces moments critiques de son histoire.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 بدا لنا وسخر لنا جوعنا وعشقنا وأمنا من الدنيا القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخدعة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن في القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حسب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة وبكل جمل سناء اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالشاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء قرانا وبدال جنوا وبداء ذكاء آه. وبالراء رحمة وبذاء ذلفة وبالسين ثناء وبالشين شفاعا وبالصاد صدقا وبالضاد دياء وبالطاء طهارة وبالظاء بالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وباللام الألف لقاء وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم بلغ وما ما قرأناه ونور ما ترونه إلى روح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام أمهاتنا وإخواننا أصدقائنا وأعزائي ومشايخنا الخاصة إلى رحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات أجمعين عامة ولا جميع الأصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واغفر من غدر المسلمين آمين آمين يا رب العالمين اللهم يا رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا استر العيون التوبة واغفر الذنوب إنك يا مولانا على كل شيء قدير ويسر أمورنا وفك أسرنا واجبر كسرنا واحسن خلاصنا وبلغ ما أمرك آمالنا لا تجعل الدنيا كل همنا ولا مبلغ علمنا واجعله في أيدينا ولا تجعل في قلوبنا اللهم اجعل سارنا على من ظلمنا اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الرحمن الراشدين اللهم ادخلنا عذابك يوم تبعث عبادك وادخلنا الجنة بخير حساب اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا وقلبا خاسعا ولسانا ذاكرا وصاحبة مطيعة وأولادا صالحة وتجارة لن تبورا يا نور نور يا عالم ما في صدور أخرج جميع المسلمين من الظلمات إلى النور أخرج جميع المسلمين من الظلمات إلى النور اللهم لك الحمد وإليك المشكي أنت المستعان وإليك المستغاث لا حول ولا قوة إلا بالله العلي من لا تراه العيون ولا تخالجه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا يخشى دواعي ويعلم عدد قتل ولا ونوار الاشجار وعدد ما اثم عليه الليل واشرف فيه النار لا تواريه سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في قعره اجعل خير امرنا محمد جعلت بدايات ونهايات من المعدوم إلى الموجود إلى الأبد الآبادي وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توازن الأرض والسماوات وما في علمك أرض جواهر أفراد العالمين كرة العالمين وعذاب ذلك في العالمين إنك حميد مجيد يا من أجاب من استجاب قبل الإجابة في ذن داي يا من أجاب من استجاب بالإجابة في ذن ندائي ببركة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما علق والقاتم لما سبق الناصر الحق بلاقي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المقدار العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين يا رب العالمين عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام وسلام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 Nih am ya rabbal ni sultani kulli nafisina lan qudi wa salimin wa abidin asudi wa tariqin ci turuqi tadlil o kulli talmisin wa si fa bi duha yasrifu balaya wa bi rajai yudul hataya rasaqana khaliquna nurayni wa ahsana alqitama fi daraini bi jaahi ahmada wa man tallahu sala wa sallama alayhi llahu ya wal ikram ya basital arzaq wal anam nanu fatu faxfirana kulla fi babika lasi munaaxul muflihin barke borom Touba Serigne Ali Bongo yal na yàlla wéral ko yal na yàlla yokk ko wér yal na defal ko wér yal na yàlla def jàmm ci réewam waaye yal na yàlla def jàmm ci sunu réew yal na yàlla sàmmal nu sunu kilifay diine waaye yal na yàlla sàmmal nu sunu kilifay àdduna yal na yàlla tuur jàmm ci réew mi lii nga xam ni moo jàll liñ ciy xëccoo yal na sedd guy yal na nu yàlla jox ki gën ci nun yal na nu yàlla jox ki gën ci nun yal na yàlla jox ki gën ci nun ki nga xam ni moo am yéeneem di xaritam ba defal ko lii moom yal na ko yàlla fay yal na ko yàlla fay yal na ko yàlla fay yal na ko yàlla jox wér gu wér cëng guddal aw fanam lool wéral ay cëram lool bi jaahi nabil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam yàlla musul nu ci musiba bala kasara gàcce gàtt fan ak deegu ñaaw topp yàlla gën a jafe yal ko yàlla yombal mooy yàlla gën a yomb yal na ko yàlla jafeel lu nu topp lu mu néew néew yal na yàlla fulal nu ko. lu nu mooy lu mu bari bari yal na yàlla jéggal nu ko yal na nu buur baal baal sunuy jur yal na yàlla guddal sunu fan wéral sunuy cër dellu li nu xiiwal ak wërsëg bi jaahi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla jéggal sunuy jur yal na yàlla jéggal sunuy waajur yal na yàlla jéggal sunuy waajur yal na yàlla jéggal jullit yépp bi jaahi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam yokk leer Serigne Touba njabootam. yokk leer Serigne Touba ko njabootam barkeb Serigne Saliou yal na yàlla defal ñëpp am jàmm bi jaahi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin rahmani rahim il fatihi lima ukhliqa maliki yawmi din wal khatimi lima sabaqa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nasiril haqq bil haqq ihdina siratal mustaqim والهادي إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وعلى آله اقدره قدره خير المخدوب عليهم ولا الضالين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 alhamdulillah rabbil alamin barke borom touba yalla ñep xam nañu rew momu maulana cheikhul khadim fa ko exilé won waye njabotam gu tedd gi man anna na fa cheikh mohammedou moussa ay yoon waye bañ fay dem bobu mom mi modou doon président conseil supérieur islamique bayam di jitu rew ma kon nak day wone mom ab julit da te jarna ñaanal te yalla mo ni ñaan len mo may len udu astajib lakum ñu ne waat addu'a silahul mu'min ñaan moy armu julit te Alaaji Bakar Jaañ mii di kenn ci ñun di suñu soppee ñu ànd yàgg nañu ànd moom dem ci ay njiitu réew maa xam fi ko àddina bi teg ak ni ko àddina bi jàppee an nañ dem centre Afrique an nañ dem Koweït an nañ dem Qatar an dem Libye moom mii xëy na Cees xamuñu li muy liggéey ci àddina bi ci wàllu jàmm ak dimbali doomu aadama yi waaye ci lay xëy ci lay gont muy nit ku baax ku am coloré lii nit ku am coloré moo koy def sa mbokkum jullit feebar réew ma lool nga jël ay ñam jël sa alal jël ay ay sarax di ko defal ngir yàlla oyofal yaramam ba ba mën liggéey réewam la fa bàyyam yéene woon liggéey kon ñu ngi ñaanal président Ali Ali Bongo yàlla delloo si eh, wérgu yaramam yàlla sàmm ko ba lim doon liggéey lislaam ci ci ci keppaaru bàyyam di ko liggéey réew mi nii actuellement di liggéey lislaam mi bu yàggul rek daaw jéeg bi ñu fa demee ci waajtaay màggal Touba ànd ak Cheikh Mahamadou Bachir avion spécial la jël aal ko délégation bi ñu ñu dem ñu def tuuru Gabon kon nag kooku wane ni bàyyi na xel Serigne Touba te màggal Touba at bu jot da yónni son excellence l'ambassadeur de Gabon bi nekk Dakar mu ñëw Touba def ay xéwal kon nag sëñ li nga def Touba gépp nga ko defal yoonu murit gépp nga ko defal waaye Sénégal gépp nga ko defal waaye jullit yëpp nga ko defal ñaan yàlla yàlla def jàmm ci suñu réew mi ñu nekk comme ni ko góor gi ñaan léegi yàlla def fi stabilité léegi laa koy wax ak benn kilifa téléphone ñi ñi xamul fitna rek ñoo ñaan fitna waaye ku xam fitna xam ni mën a yàq da nga moytu fitna ndax mu mel ni Libye sëñ Bakar mi miinu na ko lool bokkoon na ci réew bi gën a naat ci Afrique fu ne mooy réew mi gën a ndóol ci Afrique te fitna doon ko waral kon ñu ngi ñaan yàlla fi ñaan yàlla na ko yàlla nangu euh, sëñ Aliou Bongo yàlla defal ko tawfiix yëkkati ko ndax ndaw la te ba tey dese na kattan réew ci réew ma yàlla na ko ci yàlla defal kattan sëñ Bakar mi ko defee lu ko ñaanal rek ñaan gi yàlla na dem ci Aliou waaye yàlla na dem ci moom miit ndax suñu suñu mag la suñu soppe la suñu xarit la yàlla def jàmm ci réew mi ziyaara sëñ Moodu Ngom mi nga xam ne aussi ci péncam lañu lañu lañu sëñ Bakar tànn nga xam ne pénc mi péncub leer la pencu l'islam la pencu barke la yalla yalla nangu ñaan yépp assalamu alaykum bismillahir rahmanir rahim ma ngi sant yalla di julli ci yonent bi ubah, habah wassalam di sant serigne touba bu baakha baakha baax di sant serigne touba bu baakha baakha baax di sant serigne touba bu baax di len gërem yeen ñi nga xamni yene ñew di ay wëlëre di ay xarit di ay mbokk ci ñaan gi nga xamni ñu koy ñaanal président Ali Bongo yalla musul ko yalla wéral ko ci wap ji nga xamni moko dal te yalla moy faj wap bu mu meuna don faj ko da dara ci yalla te yalla na ko yalla dilo ci wéram delo ko ci sagom sam njabotam sam rewum gabon ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam barke alquran ji nu fi jang yalla man na ko nako na ko def te alquran mom ben saar wa gën ci alquran rek fajna ajo lepp lu yalla bind waxatuma la ak ben nit wala ben dekk wala ben continent kon nak yalla na yalla deug ci ñaan gi wëral Ali Bongo sam ko sam njabotam sam réewum Gabon samal ñu senegal gi ñi nga xamni ni ci lañu dekk yalla nako yalla samal sanal suñu njiiti ada sanal suñu njiiti rew sanal suñu kilifa yi diine yi nekk ci suñu kanam yalla may leen wër may leen guddu fan te yàlla mottil si yéen yéene ci diine barke Serigne Touba barke Borom Touba barke Borom Touba jërë ngeen jëf.